asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet dañuy suivre ci Leewtoo TV fu ngeen mën a nekk rek nuyu leen ñu ziar leen ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci leen di leen balu àqati di leen baal tey nag gis ngeen fi ma taxaw nii dama fu ma taxaw am promoteur bu may seet promoteur bu may seet nag promoteur bu bees la ci làmb ren la ci ñëw waaye am ay combat yu muy tëgg yu neex a neex am yoo xam ne ni tamit mu ngi koy dox ci ay combat tey nag ma doxantu ñëw fii defe naa fii canal 4 la maar nekk ci diggante Fass a ngi ne suñu droite université ngi nii Fana point 1 fële ca kaw waa kii moom xam naa ko ci làmb kii mooy Abba mais Abba ci loolu. waaw ñu sant yàlla. yaa ngi fi da daa mel si at li nga toog nii de. waaw fii fii la ñuy goree daal. waaw yaa ma gën a maa ngi lay bëgg. fii la may euh, Ndaw la. waaw waaw. fii nga ne ci daara ji. fii laa nekk ci daara ji mag gars yi xam nga rek fii la ñuy yëngu daal. waaw si lañ nekk waaw. Moustapha ngi nii. waa Moustapha. lay ziar doom day. Moustapha ci loolu. sant sëñ Tuubaa wér kay. ak sa na yàgg. mais daa mel ki may seet bu ma gisee gis naa ko de. waaw loolu dafa leer doomu nday càmm production la ak Aba ak Papa Ndaw loolu dafa leer. waaw waaw kan <laughs> kon maar est-ce que du ki may seet a ngi ne la kon waa kii laay seet kii moo tëgg nag combat bi ma leen di wax jam téeri bu kayaar wala boog soq gàmmu gi man damay juum rek damay jaawale pour mën sa jam téeri la waa kayaar maa xala añ bañ ma joxoon na neex maa ngi lay bëgg. waaw bas fii mooy daara ji de. soq gàmmu gi. yow la de. man moo tax tey mu ñëw seet si la xaw ma nag foo may man ma fekk la si fii nga sol sa tey ci biir bagage yi. ah coono jublu la yow xoolal rek mën nañ toog moom ay lala fi nekk yooyu dem seen naa ay canapé yu rafet mais lépp ci liggéey bi la. daal lépp benn la lépp si nañ nañ jéggi tali bi dem fee ut fu nag mbokk yi léegi leer na gis ngeen ñun ñun dugg nañ si atelier bi wala gis nañ ki doon seet. muy Baba jaw jiite Thiam production ñu fàttali leen balaa ñu dem rek ni tëgg na Pape Ndoye Jackson moo ko tëggoon taxawal na soq ak gàmmu géey am na yoo xam ne taxawal na ko dinañ ci dugg mais balay loolu dama koy nuyu ziar ko maa lay bëggee Thiam production Baba Diaw. waaw Ba Sow maa ngi lay fay xam nga yaa ngi sant yàlla julli si yonent bi sant suma yaay bu baax fay gaaw. di sant Abdoulaye mi ñëpp di sant promoteur yi ñëpp bàyyi ma kenn sant Abdoulaye ah. am na solo Thiam production Baba Diaw bu wax lan lu lu indi production ak lu indi Baba mu nekk tey promoteur. waaw man bu may nekk tout le temps dama bëggoon làmb bu may xale bu bëggoon làmb danañ dem ci tefes bi di bëgg foofu xam nga moom lañ dem Magal la bon maam euh, sama bëgg-bëgg la. mais waaw lu ma bëggoon la mais Thiam bi sama sant la man Thiam laa sant quoi xam nga nga moom bi fi la nekkoon euh, jàng ay mbëf dem na ba bés ko mu tax. nga dëkk fan ci Sénégal fii. man dëkk maintenant waaw. ndax. laa juddoo. bëgg mbër jamono yooyu nga daan dem di fréquenté géej yooyu di bëgg ay mbër est que daan nga supporté mbër ci mbër yi nga xam ne bëri nañu ba bàyyi bëri wala ji si toll nii. si dama naa supporté ay mbër et ko leen passé euh, mais comme support jamono maa lañ may xamaa la kooku moom man bu may nekk tout tànk ma xamaa la euh, bàyyi pël moom temps yi ñu doon nekk xale dama fekk muy Sénégal mu xëy nangu brise brise nag foofu la ma gën a duggee passé ah bu ma fii Euh, gis suñ papa Kera di bërëg si xam du ko topp waaw nan laa def daal ba laa ma dugg waaw après saa supporté ñoom Gris Bordeaux waaw nan laa ba laa ma dugg quoi. mais tey da nga dugg bi dama ciy cofaat tuuti rek mais parcelle bi ñu ko dañuy wax Modou Lo parce que c'est le roi des arènes actuellement mais moom est-ce que jamono yi nga am ak ñoom bàyyi pour relation ak ay ñoom super jamono est-ce que yéen ñaar amul xamuñ nga ko jamono yooyu. wax dëgg yàlla moom xamu woon Modou waaw Malick Mbaye laa xamoon mooy suba jamono Baye Pall moom dama fekk ñu Sénégal mu nangu. du njaay doole léegi su euh, Malick Mbaye moom unité am na benn terrain bu fi nekkoon ba ci kër Moustapha Gueye waaw foofu la lu ñu dem nekk foofu quoi. ñu koy nuyu di ko jaar mu ngi Italie léegi Malick Mbaye super jamono léegi ñu ñëw ci làmb defe naa ren mooy ci làmb en tant que promoteur. non daaw. am na commande lool waaw ñu liggéey. bu ñu demee chaque jour kii yu sew waaw moo xam ni. xëy na ñàkk déggoo daal. moo xam ni sama yaay chaque jour ma wax naan lu dul wëy dafay teel a dakkal maanaam ma bu mu nekk ku ñàkk ki ñaan dama nit lépp luy dugal sa alal day fexe fas pour gars yi xam la waaw loolu laa si duggee quoi. mu ngi ñëw ren nag def Thiam production comme ni nga ko waxee indi Pape Ndoye Jackson. soqu gàmmu gi ak yeneen combat Pape Ndoye Jackson bi muy sa premier tëgg en tant que Thiam production structure boo xam ne yaa ko seere léegi pour sa bopp combat boobu bi ñu ci duggee ndax am na ci ay regret wala. non non ñu duggee xam nga man sant yàlla bu baax ndax nit ki nekk sa bëgg-bëgg pour man pour man daal soo fi jafe-jafe fekkee sax sa bëgg-bëgg la mais bu mu si duggee non lépp naaj lépp naaj wax dëgg yàlla waaw ah, ndax bàyyi laat moo seewoon biir yi. te lu ma ak bu ma xamee lépp jotaat suma xaalis yàlla yàlla moom dëgg la bëgg quoi. kon daal perte ko ci combat boobu. si. léegi ñu jóge ci ñuy waajalaat sa beneen journée diggante soq ak ki nga xam mooy gàmmu gi boobu foo ci toll actuellement. waaw soq gàmmu gi ñu ngi koy waajal comme ni ma la waxoon un jour ak ànd ñu ngi koy waajal ànd xam man na sama ay mbokk am na suma ay mel ni ñoom ngaa la comment ma ne sama doom bi rek Yuusu ànd ak sama famille yëpp ñu ngi koy waajal di si liggéey ñun ñoom Abdoulaye ak Djib Sow ñu ngi si liggéey bu baax daal waaw. à boobu am na yeneen combat yoo taxawalaan bu dul sox ak gàmmu gi. waaw taxaw nañ Modou Séeréer ak Kangam. Modou bu Sox Mbaba ak Kangam dafa naa Kër Masar dëkk ah. gars si léegi léegi euh, kii nu mu sax Pogba Daaw ak kii euh, Mamoom. Mamour. waaw doomu Fass. doomu Fass bi. Baba Diaw loolu sax Mamour benn bi ma xam rastaman bi. bëri problème. waaw léegi léegi ma laal bu woon ne ma taxawal na ko. man ko coow jiwu. te lépp ci ban même même journée bi lay am. waaw ah, lépp ci même journée bi la. te bëgg nañ tamit yeneen combat. pour def ko si biir. ndax journée Babs. waaw dama bëgg a càmm dama bëgg mu fas. waaw. ñetti grand combat nga joxe de actuellement nii. mais des na des na des na comme. dafa am benn baat bu may foo di wax mais gars yi ñu si bàyyi xel soo déggee maanaam ragal yëpp yàlla la amaana ku gàtt dégg-dégg du xam fu may waxee ndax tey euh, àdduna ñaar la waaye gàtt baara pet ma a baara pet sama life yëpp loolu la tey bu commencé fii ba fii xam nga du ay caaxaan su ma gars yi sax dama koy wax su may jëflante ay nit billaay wallaay tey su ma jorof vingt cinq millions wala dix a kaas jox la gars yi dañ siy àll ma ne non liggéey moom ñeme ko bàyyi bàyyi ko man noonu laay joobee. waaw adduna lépp risque la sax. risque la waaw man noonu laay joobee quoi moo tax ma ne ragal yàlla la te am na yenn combat yoo xam ne dañu siy def soxla. léegi su ma ñëwee ci journée boobu journée boobu kon daal bis boobu lan lañ ci war a mën a xaar bu ñu yeggee ci combat yooyu nga wax parce que tamit ñetti combat nga wax yëpp ku ci ne tey. boo ko defal bés bés la maanaam mat na bés mais am na beneen boo xam tamit dinaa ko laalaale muy Jacob Baldé mi waroon a bëri ak Mbagnick te Jacob yàlla a taxawee. waaw Jacob la ñu bokk ndax ñoom combat la ñu def ma Jacob am gaañu gaañu tamit ñu siy sant yàlla xam nga moom am yàlla tudd nit ñu si daal léegi bu Jacob wóoree seen comme ni mu lay wax ñun daal lu ñu waajal am xam ànd suma ay bopp ànd suma ay copain man baaxul ko ñun laaw. ak sëñ bi am di Moustapha ak ñoom ak ak Ndaw. waa Ngalla. mais Zago est am nga ci moom ay nouvelle en tant que promoteur bu ko dégg. ñun déggante bàyyi laa doon na ma ne ma instant instant eh, di nga waaw de si bëri quoi. kon apte na pour bëre pour jour pour date boobu. date ay xelal lan dañ baaw jànk. lii nga lii moom boo ko dajee arène nationale moom topp su dem lay doon saañ bëri xaw ma gël tàppe lay feeña xaw ma Medina nag. nga xam lu daal sax ñun ay amateur lañ avant tout dañ dem dem seetaan ñoom Pape Fall suñ ñu seetaan ñoom Dieye ñoom Aziz ñoom Assane Ndiaye xam nga ñoom Fallou Ndiaye ñu leen seetaan ay amateur lañ xam nañ làmb moo tax tey Abdoulaye su ma woowee ñu ma diw ak diw su ma orange dama ko tëggal su ma man maam si gàttal dama bëgg man dama bëgg xam nga amateur bu ñëw kontaan. parce que dund bu baax te làmb Babacar Babacar làmb lu ma si daj lu ma si daj. billaay wallaay sama yaay dama fin temps sax la nangu samay morso làmb moo ko yaax ak sëriñ Tuubaa mais lu of naan nit mu bëgg. su ko gëmee day dem ba dégg si daal loolu laa gëm am na solo loolu am na solo mais tey à part ndoo yooyu nga fi wax yëpp muy combat yu neex te yaakaar naa combat yu amateur nañ ci am satisfaction mais bu dul loolu tey tamit est xalaat nañu gis ci euh, am production parce que ay mbër yu mag a ngi fi ñoom Modou Lo ñoom Ama Baldé ñoom Balla Gaye ay Bombardier consort Gris Bordeaux donte am na ñoom sax am nañ combat ku mel ni Modou ak Ama mais ñi des tey est-ce que xalaat nga boole leen sa plan pour ren. man dama maa nañ ñi ko xam ne bëgg lu mu wax sa suñu borom ma def ko bëgg ma caméra yi tiim ma waa yi duma jaay yow ma su ma wéetee si nekk damay xam sama bopp duma sama boobu man man kër kër ñoom saa kees ba ñoom Baga Dóor réew mi jàpp ba si ñoom ama neex man par naa pour tëgg si est ce ciy démarche. waaw bàyyi la Abdoulaye moo si ko sax bëgg na moo doon ànd ak Diène Kaïré bi. maanaam Thiam production bëgg si combat bi. Euh, mën waxaal mélanger wu kii euh, Modou bi. Zalmay Zalmay daanaka seen diggante lu des boobatul daal. mu doonte ak ak jéem. jéem te dina ñaari ndaam. waaw xam nga comme moom la ñaari ndaam ñaari pànk. comme moom la waxoon si commencement ba man ay combat wu jànk combat yoo xam dañuy xeex dañuy bëri. ci lu xam naa li ko demoon contre ak euh, Kay Queens bi yoon bu ñëw du ko daan ndax amateur yi dañ ne xamuñ ko noonu mu doon tax nag moom Baye Fall balaa du balaa dóori dóoru. moo tax mu bëgg ko nag bëgg naa combat ba bëgg naa tamit yeneen combat mais lépp rek day dépendre sur la am na day nit ki doo ko jiital dafa fàq sax te loolu yàlla xam na ni suma ma bàyyi woon teg naa combat yu mag waa ci Seex loolu moom soo gisee moom laaj ko moom waaw mais sax sama gars yi ñoom Aba ñoom am di baat boobu la may dégg chaque jour ñoom comme dañ jiital lan rek bàyyi ko moom liggéey ak xelam. waaw laata yàlla am na lu mu ko mooy ci wàllu organisation lamb moom te suñu fàllu doon wax ne tepp tepp gën yu rek. ah coono si nekk rek mais naanaan la sëñ Tuubaa amoon na eh, man am na loo xam ne avant may ñëw si moom. xam naa lu ñuy jax yaa ngi day baaw la mais dama si kanam ndax damay bëgg mu leer ma comme li ma faral di wax man mais damay doon ngaak si kanamam mais su ma ko yónnee mu def lool bàcc ak xool su ñëwee même ndox la may wax. dal yow la ngay xalaat ak li nga xam ci mbir mi ne lii mooy prime boo yebalee laat laat bu demee bu ñëwee même loolu la indi laat. moom la indi du benn du ñaar kon am naa sañ-sañu jàpp ko. ba si daal. yëpp loolu neex na ci ànd mais tey tamit boo ma bu fekkente ne Modou Anta ak amoon na ak yéen mënoo ko am ama neex mu ngi fi war naa bëri Moussa. pour man neex ah, mais su ma fekk mënu ma am combat boobu man gàggal saa kees moomu gën a. Garga Mbossé saa kees. nga bit tëgg la. si kaw. Abdoulaye mais laat wax nga ci ak moom ci loolu. moom soo soo ma posé moom si lay daaxee waaw. waaw dëgg man maa nekk ni koo xam ne nii lii lii la ma ñëpp xam ne tënnu ak axoon su ma soobee tënnu nii si laay gën a toog nii man euh, nu nga ko nekk quoi. maanaam côté Rane mbaaw laa jógee sant waaw te man su ma soobee nii nii si laay gën a nekk à man liggéey laa xam. maanaam bëgg naa combat Garga Sa Thiès mais lépp si kaw am laat jo jox ma ndigal loolu. ci saison ren bi. ak Serigne daa war am sax est-ce que mu ne combat bi war a am. Garga Sa Thiès dañuy war a bëri. xam nga comme Garga yaag Sa di xaar bëri leen. xam nga combat wu jànk la mais man ga man euh, Garga musuma toog moom mais musuma sekk mais dugg si am damay daanu. gar garga ak dàll padam njaxin ya ak sëru njoor ya muy takk yooyu artiste la de mbaru séréer la. mbokk kaamil la. daaw toj na domaar moom Moussa Ndoye. mbokk kaamil la. mais c'est dafa am lu ko manqué tuuti rek moom garga mais du du wax si média mais mbokk kaamil la xam nga loolu mooy si mbër soo ko séenee mbër mbër baa nekk na te su dugg see saat soxal seet. Sa Thiès itam ku ne xam na ko rythme moom moom moom du maye jàmm moom attaqué lay def moom ci sa kaw la jëm. tey man xam naa ne saa su ñëwaat nii kenn du ko téye ndax day bëgg a wane moom tamit moom saa day bëgg a wane. waaw te fi mu ne daa am ci lu mu jógee te daa bëgg a ñëwaat am lu dikkee mooy loolu boo ko taxawalee baaba dina def lu doy waar. loolu lépp si Abdoulaye la dépendre parce que ah, comme ni ma la waxee bu ñu wax fii loo xam nii tey nit dama baaw ayca ma ko xam xam xaar bëgg naa su ma nee ayca ma ne ayca te du ma dépense kenn sama xam lépp suma moyen bopp la ak suma gars ñu la yàlla booleel daal. waaw ak seen diwaan lépp lu may wax rek may bëgg teg fa wóor si yàlla daal. am na solo mu mel ni kon fi ñuy jeexale daal mooy tey tamit parce que nit la bi nga xam ne ci làmb la bokk. di promoteur wax nga léegi ne bokk na ci ñi la inspiré sa royukaay muy Aziz Ndiaye mu ñàkk soxnaam fan yi yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko def ci làmb ba taxawal en tant que soo xam ne seen rakk nga di seen frère en tant que promoteur waaw ah, Aziz dañ koy ñaanal jàmm yàlla dafa ko jàmm xam nga du ko jaay sax ñëwoon moom euh, ku baax la nit gënu ko dañu bokk fi ñuy entraîné piscine olympique mais saa damay woo waxtaan ak man ni ma tegal fii tegal fii tegal fii kon loolu ku koy defaat li gënu la nit nag dañ ñaan yàlla yàlla teg ñu ko natt mi waaw ñun ñaan dong leen mën maam du fas woo di leneen dañuy ñaan rek xam nga gars yi dafa yëngu ne bi quoi ndax maa nga xam lan de jàmbaax la de waaw suñ bëggee suñu làmb ji jëm si kaw foog ñu jàppale ndig pour mu génn ndax jàmbaar la man moo Aziz xam nga fii soo waxee sax tamit waaye dafa bëgg a dóor nga def nii xam nga gars yi dañ taw dëgg yàlla ak moom ak wax li nga gis. waaw Aziz ba mu ñëw si làmb dafa osé woon gëmoon boppam loolu laa gis ba sama bopp si Aziz laa koy xoolee. sa idole la daal. waaw waaw samay loolu la oh, waaw waaw soo waxee ak dañu day dóor te yàlla xam na ni man duma sens boobu nga wax waaw mais man samay itoo Aziz la ndax mu osé gëm boppam comment man nag man tam noonu laay mel dama dama gëm sama bopp benn doomu aadama mun ma dugal saa yi lu ma bëgg bëgg quoi xam nga ñun naa dafa leen jàmm xam am jàmm. man man wax sax mënoon na wax mais émission bi am na ñu ko bëggoon yàlla xam na loolu mënoo woon lu bëri mais sax xam nga maa suñu doon def fii la ko tuddee mais sa émission xam nga mu neex dañoo xam fooy taxaw xam nga mais suñu suñu bëggoon si ay questions yi kii sax yow suba yaa ngi ciy génne kon lool la sant la. kontaan ci kon yàgg maar noonu la demee woon loolu mu wax itam am na solo ñun moom kuñ sañul lépp day rafet yaa ngi kuñ sañul kuñ dégg micro rek soo waxee di wax wax joo xam ne dañ la ci naw parce que loolu la laaj di ñaanal ñëpp jàmm di ko encouragé parce tamit li muy def nii liggéeyam la yor yàgg ñu remercier si lamb kon encore une fois rek la ma doon wax promoteur yi ñuy bayu lamb yi nañ leen pousser gën leen a jàppale rawatina nag état du Sénégal ñoom la ñuy wax loolu parce ñi am na semence bu bëree bëree bëri bu ñuy wàññi ci dëkk bi ku def loolu nag nekk acteur di wàññi semence bi nga xam ne nii ci benn côté mu ngay employé ni di leen liggéeyloo kooku jar na dooleel ngeen sant ma ma dolli leen kon lig yàlla na génn ak jàmm képp ko am jafe-jafe yàlla la ko yàlla fajal barke yonent bi sallallahu alayhi